ñu ngi yëkkati ay ñaan ak kàddu cofeel ak kàddu warma ci sunu kilifa muy sëñ Ibrahima Seck Abdourahim ginnaaw bañ ko nuyoo di jël nuyoo boobu di ko jaarale ci moom mu jotaleel ñu ko mépp képp kuy kilifa ci Thiénaba rawatina si sunu maam Baye Serigne Hassan Seck ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko naal yi nga xam ne moom la taxawee ak yi fi góor gi bàyyi yëpp yàlla yàlla kàttanoo ko te dooleel ko ba mottali ko ni mu ko bëggee bi jaay Seydina Muhammad kàddu gi nag xam naa dinañ lot ci yëkkati ko lool sax ndax ay sëtu baay rek ñoo fi toog te ku ci nekk rek kàddu gi ñu jox mën nga koo yëkkati xaj na fu leen bis bi tolloo ak fu góor gi tolloon ci ñoom ñoo tax daanaka ku ci nekk rek mënul yëkkati kàddoom di ko yëkkati jëmale ko sëñ Ibrahima waaye kàddu gi ren day doon ñaari kàddu kàddu goo xam ne génn gi dañ koy jagleel suñu maam liñ daan wax ci moom rek la wax amuñu sago ci moom népp lépp fe népp nuñ mer rek ba mën a nekk fenn ba am fa cër ñu jox ñu fa war ma jox ñu fa cër wóoluñu moo ko liggéey ci ñun waaw ndax ci keppaaram ci lañ màggee waaye xamuñu xamaluñu lan mooy alal xamaluñu lan mooy matériel lim ñu xamal mooy lan mooy nit ak nit ki yan qualité moo war a nekk ci moom te qualité yooyu mu jëmbat ci ñun yëpp yàlla def na ba tey ki gëna ndaw ci njaboot gi qualité yooyu da koy jis ci moom muy qualité yi mu daan wax nit foo nekk da ngay xam ki nga doon te nit day doylu loo moomul nga bàyyi ko fa te ñi sa kilifa nga warmaal leen jox leen cër kàddu yooyu nag la ñu daan dénk kon kàddu yooyu ñun njaboot gi ci lañ nekk ba tey moo tax fépp fu ñu dem rek teraanga ba ñu fa jox rek dañuy jàpp ni jommuñ ndax ci keppaar gi ñi màggee moo tax kon moom mënuñu koo fay dañuy ñaan yàlla mi nga xam ne moo moo am ak fay yàlla na yàlla fayal ñu ko yàlla na kawam lépp lum naaloon ci bërëb bi muy biir ba ak cooti fii rawatina cooti yàlla na yàlla mottalil ko ci toogaayu taawam bi di sëñ Ibrahima Seck waaw te sëñ ma dikke da daan wax ni nag lépp jar naa xeex waaye li nga xam ni moo moo mot a sàkku dëgg mooy doom joo xam ne danga ngaa bokk ak moom jom ba Abdou doom yi fi wàcc ñëpp ñoo bokk melokaan ci kii ci gën a ndaw ba ci kii gën a mag koo koo ci xool rek Baye Abdou ngay jis ci moom waaw ci jom ci am ful la ci boppam ci doylu te loolu dañ koy seedeel si Ibrahima ñun ñeme nañ koo wax lu nekk ñeme nañ koo def lu nekk waaye dañoo jël rek def ñu ay jarbaat jarbaatooñu dañuy toog ak moom kaf moom ree lu nekk lañ koy wax ñun nag moom mënuñoo wax ci moom waaw mosuñoo wax ci baay ba dara gàllankoor ñu waaye sëñ Ibrahima moom mënuñoo wax ci moom dañu ñaan yàlla mi nga xam ne moo mën na fay yàlla na ko yàlla fay jarbaatam yëpp amul kenn koo xamante si nii ragal nga ko wala nga koy xool beneen bët waaw li ñu am ci moom sax ay doomam amuñu ko ci moom kon dañ koy sant bu baax a baax njabootuk Baye Abdou gi topp ci ginnaawam bépp ndam bu ci góor gi amoon rek yal na yàlla defal ko ci ndam lu kawe lool ci barke alxuraan ñun ñëpp ñu ngi booloo di la sant di la gërëm ndax bisu baay bi luñ ci defu rek dañ ko amul man mii di bu ma amoon man maay def lépp ndax man fii laa màggee xam naa lépp waaye dañuy sant yàlla rek ñun moom njabootuk baay duñ leen coof mukk waaw ku dëkk Thiénaba nag dinañ la war maal jox la cër waaye njabootu baax yi ñaanuñu yàlla wan leen ginnaaw ñaanuñu yàlla di leen tànqam la dañ ñaan fépp fu ñu soxlaa rek yàlla kàttanal ñu ni ñuy kàttanalee mooy mu may ñu wér waaw bu ñu amee wér rek fépp fee la ñu soxlaa dañuy teew kon ñu ngi lay ñaanal lépp loo xam ne naan nga ko ci dëkk bi yàlla yàlla kàttanal lañ yàlla boo gis dara lu la gàllankoor ci barke alxuraanu karim Cheikh Gueye tamit nee na mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm li mu lay santee di la gërëmee mooy taxawaay yi nga xam ni ak yéene yi nga xam ni Ba Abdou amoon na ko ci moom donte ni Ba Abdou nekkatul waaye taxawaay yooyu yow da ngaa ñëw feddali ko bi fi Baye Abdou di nekk taxawaay yi yooyu yëpp antuwul waaye bi fi Baye Abdou jugee bépp lu ab du naaloon ci njaboot gi wala koo xam ni Baye Abdou yéene woon na ko teraanga wala bërëbu liggéeyukaay yooyu yëpp taxaw nga ci ba yooyu ant ñoo ngi ñaan yooyu noonu yëpp yàlla na nekk yiw yiw ci yow ci saara ak ci baatin ñun mënuñu laa mënuñu laa fay mënuñu laa fay de Baye Abdou rek lañ lay xoolee wallaahi manqué wuñ Baye Abdou benn yoon ndax lañ amoon ci baab Abdou am nañu ko ci yow kafak ree tooñ daw dàq yooyu lañ amoon ci baab Abdou jàmm jooju jàmm ju ko raw nag am nañ ko ci yow ñu ngi ñaan ni ñu jàmmalee nii ak ñi ñu suturaalee ak ni ñu nangoo yilif yàlla na la yàlla suturaalee noonu yàlla na yàlla gën laa sagal gën laa teral moom ñu ngi lay wax ñu ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ginnaaw képp koo xam ni taxaw na pour sëñ Ibrahima balam laa jot ñun lay jëkk a jot amuñu lenn lu dul kër Baay Abdu te àdduna du neex àdduna du ñu jël mbokk ba ñu wan ginnaaw waa kër Baay Abdu yéen la am tey yéen la am ëllëg yéen la ñuy déglu yéen la ñuy xool foo leen ñu awloo fa la ñuy aw loo leen ñu wax loo la ñuy wax loo leen ñu dugalul suñu yoon nekkul kon ñu ngi lay sant di la ñaanal kàddu gi yëpp ni ñu ko waxee woon ëpp na yi waaye nag nit moom am na foo xam ne lépp mënu ko waxal boppam ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ni moo mën a suturaal jaamam mën a aar ab jaamam yàlla yàlla suturaal la aar la comme na a aare Màkka ak Medina di sant sëñ Seexu ci kóllëre gi mu feddaliwaat ci seen diggante yéen ñaar yàlla yàlla gën leen ko sàmmal te seytaane gën leen seexlu ci daraja alxuraan sant nañ bu baax a baax a baax waaw damay confi rek maar ci Papa Ndiaye li mu li mu li mu li mu wax ba ba rongoo ñoom tuuru ci cofeel ci maamam mais ci yemu ci mais bëgg ku bëgg maamam xam nga dañuy wax ni ak bëgg dëgg-dëgg fi nga koy xamee ci nit maanaam sëñ Pape Mourtada Seck mi boo ko bëggee bëgg gi war na àgg ba ci bu koo gis mu jige Pape Mourtada nga bëgg ko koo yaakaar ne daa bëgg Pape Mourtada nga bëgg ko ak bëgg doo ko natt rek ci nit ak ki mu bëgg déedéet kon kii bi ma maamam toogee ma ñëw jige ko ben bis dara la jóge ñew ni ma bala nga ñibi soxal na la bi may taggo muy yëkëti ñaari paquet paquet bu ci ne ab jessner mo ci ne bu ñew ba paré ñaari mbub jox mako ko ni ma donte ko man ak yow doomu nday lañu li dama la ko jox ngir ma samam maam Abdou kon kon lu amul sédé baxul da ni mel nak dama gis nga jige ko diko ko buma bu ma sol wara tok sama ma ne ko man yow boo taxawee ma taxaw ku ne xam nañ maanaam mënuñoo solante yére waaye loolu dinaa ko dinaa ci barkeelu ba ñëpp xam ne lii yaa ma ko jox li ñàkk-ñàkk mënante solante yére dama ko sol ñëw ma ci ma Abdou ma présenté ko ko ne ko Papa njaay bii ma sol ñaar la ma ci jox te nee na ma bu ma soyoon fu may toog ci yow lu may sol moom moo koy xotti keroog daa yéem Pam Ndiaye ñaanal ko ni ma pap xol bi moo rëy am na sax turu ma waxoon waaye jëru ko <laughs> moom ko daan moom ko daan tooñe bi muy xale kon yàlla yàlla guddal sa fan donc te wéral sa cër euh, ñun xam nañ sa xol ci maa Abdou waaye xam nañ sa yéene ci kër gi loolu nag suñ ko waxee yow la ñu cité mais ñi nga àndal ñëpp loolu moo nekk ci seen moo ne ci seeni xol ndax ak bëgg daal ni ma ko waxee bu yemee ci yaa ki nga bëgg rek des na nit soo ko bëggee te muy dëgg ku ko jege kuy soppeem kuy xaritam kuy doomam sax cofeel gi da maam da koy laal léeg nga gis ku bëgg nit te seq ñu ko waaye daa am ku bëgg lool gis kooko di so moom te sëñ Seex mi am na ñoo xam ni bëgg nañ ko te sëñ Seex xamul leen Seex kook ñoom waaye ñooñu Baay Abdu lañ bëgg ba bëgg ga sax fee sëñ Seexu lab na ci biir man mi fi ne bari na ku ma bëgg te fi ne mosuñoo sax bokku jotaay baa ñu nuyoo ah waaye Baay Abdu mi nga jàpp ni bëgg naa ko moo tax nga bëgg nga bëgg ma kon na ngeen gën a góorgóorlu ci groupe bii ngeen ngeen def ci mbootaay gi ngeen def jël ay engagement ci kër gi jël ay engagement ci sëñ Ibrahima jël ko ci daara ji waaw am na ku ko wax démb ca saalu seexu canaba daan ni ko amul lu dul lenn ñu tànnal la ko te buñ la ko tànnal woon doo ko mën a tànnal sa bopp kon buñ la ko tànnalee la ko ak sa fukki loxo kon lii yàlla moo leen ko tànnal moo leen tànnal cóori tànnal leen baab tànnal leen jabootu baay Abdourahim donc na ngeen xam ne ñun noo ngi ci sunu biir ñun nag bu ñu nekkee suñu biir lépp ci lañ leen mën a jariñ mooy xel ak xalaat ak luy tax ngeen gën a ñime ak luy tax ngeen gën a nangu wéeru ak luy tax ngeen gën a xam fu ngeen di teg seen tànk nun de góor gi wax dëgg yàlla liñ ci doon sàkku sàkku nañ ko ci ba yaakaar nañ ni euh, lañ ca war a am am nañ ko ca waaye teewul nag njabootam gi nuy jéem bu fekkee am na lu manqué nuy jéem suñ kem kattan di dabu ndax yàlla bu dee am na lu manqué mu mu mottali ko te la ma dal moo leen dal kon na ngeen góorgóorlu boole seen bopp boole seen xel boole seeni xalaat di xool kër gi tey déglu seeni i ndigal euh, euh, grand sec maa nii bu baax yow yàgg nga yàgg nga di ma gaaral sa cofeel ci bay Abdourahim Seck du benn du ñaar su ma jaaree ci seen bunt wan ak wax wallahi asim nga téye sama loxo bi mosu nga maa ñaanal bay jooy ndax Baye Abdourahim ci ginnaaw ba mbuubeen noonu saa yi ma rombee nga téye sama loxo bi ni ma nekk nga nekk ci wetu Baye Abdou daa mel ni mën nga fa toogal te boo koy wax ci xol nga koy waxee maa ngi doog am occasion pour wax ko kon yàlla yàlla guddal sa fan sëñ Seexu yow mënoo sant sa bopp li sëñ wax ni sama diggante yow nekkatul may si naan lii la defal lii laa ko defal déedéet dafa am koo xam day dem ba mel ni yéen ñaar duut ñaari jëm benn ngeen kon yow it ah, képp kuy soppeeb kër kuy doomi Baye Abdou su la ak su la sant na la ndax nit ki fi nga war a taxaw ku la fa taxawal ba turu amul faay amul waaye sëñ bi boo dee as ko sant kon ñun kuy bégg kër Baay Abdourahim rek yow sëñ Seex war na laa sant sëñ Ibrahima nii fi ne nii lu mbooloo bari bari boo ko neexee du wax du yëkkati kàddoom bu la gisee tey sëñ Modou nekku fi lu mat semaine ngi nii man a yow moom te loolu bu fi sëñ Modou nekkoon mooy taxaw te bu sëñ Modou nekkoon it doo nangu sëñ Modou jël ab cëram bàyyi sab cër bésu tey baa ngi nii ku ne mën naa ñëw nuyoo dem waaye ñemewu ko ku ne mën naa teel dem waaye ñu ko macha allah sëñ Pape Mourtada sunu ndu yaay moom it ñoo ngi koy nuyu moom alhamdulilah nit koo xam ni koo ni sëñ Pape Seck la gën mu nangu ko ah ku la gis yaakaar la ku la gis xemeem la loolu doy na sëkk ngay koo xam ne ku ku laabir ci am xel nga yàlla na yàlla fayalu la defe naa mos na ma ko wax ci oto ni ma man de wax naa diw ni ko man de soo mënoon fexe ba Ahmed Mbuub ak Aliou Ndoye Ma am seen bande bo xamni du nek len lu dañ koy dañuy xëccu rek tag ti fess ndax seen façon matxu daf daf daf daf maa neex kon sëñ Ibrahima bis bi liñ ci ya lepp yalla defal na la ko ci waxon nga ni dama bëgg bis bi nuru borom ci ak dal waxon nga ni dama bëgg bis bi nuru borom ci am jam waxon nga ni dama bëgg bis bi nuru borom ci ak lamiso bëgg na bis bi nuru borom ku ne ñew ba dem do yëg lo loo naqari sa baye Ousmane sek ca ba ca ba buñ mosaan dem ba ci cérémonie ki yor micro ba ko daan kaay kaay mu ñëw mën ko na nga fexe ba bu fi kenn rus bu fi kenn rusul rek lu waay ñaan eh, yàlla dana ko nangu maa ngi la koy dénk yow mi yor micro bi fexeel bu fi kenn rus rek bu fi rusul rek lu fi waay ñaan yàlla dana ko nangu te yaakaar naa ci subaak léegi jàngal nañ bis bi dégguñu sax ñaar ñu werante kon yow la nga ne woon na bis bi nduru Baye Abdou Rahim ci dal ak ci jàmm loolu yàlla defal na la ko sekk beneen bi ci mooy nit ku ne njaboot lay tiitaroo yow fi ne sa rek nga tiitaroo sa sa rakk yëpp koo ci xool xar kanamam rek ak cofeel ci sa digg moom ak yi ñeewante la ak fa yéene taxaw sa kanam jàppale la moo na ci ñoom yow yi ba Abdou sëñ ma dikkee am na lu leen yàlla defal yàlla dimbal leen lool seen dundin ak seen ginnaaw xaw naa am ak nuroo lool lool lool lool ak seen doxinu njaboot am na ñu ngi nuroo lool xoolal sëñ ma dikkee ni mu jaboote woon li ko yàlla joxoon ci teraanga kera bi ñu koy miraas manaan weer wala semaine wala ay fan bi ma demee ba ca guddi ma laajte ñun ma lépp mat na man dama damaa jaaxal waaye ba Abdou tamit xalif général ñu dem ba ci benn bis ca guddi ga ñu laaj ñu lépp nee na lew lépp seet na guyi loolaat keroog dama yéem bi ci des mooy boo duggee kër Sëñ Madike doo xam ñaar ñu bokk ndey ak ñaar ñu bokk baay waaye kër ba Abdourahim gii bokk na ci li daan tooyal sama xol su ma duggee kër ga duma bëgg a génn mooy njabootam ni ñu meloon di bëre di dàqe di kaf di ñaar ñu ne ay doomi bàjjan lañ loolu loolu loolu tooy sama xol ak di sawar di toog a yéen kon loolu nag moom la bu góor gi bàyyi ginaaw muy dund loolu yàlla na yàgg bis bii yàlla nañ ku fekk déwén bu déwénee yàlla bu kenn manqué waaye daal li ma lay ñaanal fii yaa fi ne na nga dogu sa barke baay xale yii bu déwénee kenn rek volontaire daani na ñepp tey seen lox ma def ma def bis bi ñaan man lu ne baasa ne ñaan man lu ne na nga ñaan ci barke xol bis xol gi sa xol sedd ak barke cioti gi xale yi nga xamni sa jëm ji leen tek sa kanam ñu dara di si yow ñaanal yalla defal ni xewal ba bu déwénee kenn mo naan na ñepp tey seen lox ma def ko sëñ pa bit ñu ngi lay ñaan nga jappale ko ci ñaan gogu fi ma ag sax alama fi aglo waye Papa ndjay mi wax ba joy te ma xam li passé loo xam ne su ma ko génnewul kenn du xam ne li mu wax dëgg la joxe ne moo jiitu lii nun nag nu ngi sant suñu borom bu baax man yàgg naa di Alioune Ndoye réew mépp xam na yàgg naa di Alioune Ndoye ñëpp xam ni ndaw la waaye nag am na lu ko yàlla defal ci kàddu ak ci tagg yonti bi ca ba may tuut tànk ba baab du toogee waaye nag loolu yëpp bi nekkee ci man daa mel ni baab doo baab ni ma cas daan réew mi waaye kii mu ngi nii xool leen ko li ñuy wax VIP bu dee àgg naa ca ci bi mu toogee nag la ma waree nag nit ñëpp xam ni kii mooy Alioune te loola kenn mënatu ma ko xañ ñett ña taxoon ma xam leen Ibrahima sa koo nangu yow mënoo koo nangu ñi nga xam ni sama diggante ñoom ci moom la jaaree kenn mënatu koo nangu loolu mën naa ko koo fay kon yàlla na yàlla yaatal àjjanaam mu bëggoon ma lool bëgg sama kàddu lool buñ mosaan yónni mission ba ñëw danaan a ah, ñu ngi nii de wax naa leen ko nee naa leen su ma gisee gis àll sama xel day dal man lu ne ci man li ma mujjee wax Ousseynou gi taxaw Ousseynou gi toog ci dóobaale gi mun ma mbaa xam nga ni téeméeri nit fu nu nekk bu la téeméer bépp dégluwul juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent daañu la déglu moo xam ko sama sama sama sama ma mel ni ku xaw a kii jaxasoo mun ma amul amul laam la kii bay na bay na daan ne ma waaye am na loola yàlla jox ci kàddu la ca teg pour kër gi la loola loolu nag bis ba ma ci xalaat mun ma waaye am na loola yàlla jox ci kàddu ma ni ha mun ma pour kër gi la am benn laaj bu ma laaj ni ma nag yàkkamtuwuma ci ma ni teg ni teg ni teg ba yàgg ma tontu ko mun a mun ma sa tontu li de àndut ak bëgg lu ma neex àndut ak bëgg lu ma jey jërëjëf kooku mooy Baye Abdourahim Seck mos naa ko nit ñëw na ci moom di dem ma jàngat ñooña jotaay boobu man ko maam a ah, ñi daa mel dañoo laaj ci de maanaam wàllu ndimbal mun ma ah lu ma leen kii man ko loo leen jox rek mu tibb teraanga jox ma seen seexu ma woo ñooñu ba góor gi seen leen ma jox leen ko ma defaat ko beneen yoon mun ma jërëjëf ci li may fàttali waaw am na koo xam ne daanaka li mu gën a bëgg rek mooy mooy nga xalal ko yoonu digganteem ak ki koy jox ah waaye kilifa joxoo ko ba pare di ko soñ ci ci joxe ba pare mun naa la jërëjëf ci li may fàttali loolu loolu lu rëy la ci man te sëñ si Sy Mansour bi mu toogee maa ko dégg ci làmmañam mu ni sama waa kër wax naa leen ni leen bu leen ma ibbil buntu digganteem ak ñi may jox di ma tëjal buntu digganteem ak ñi may laaj kon Baye Abdou Rahim yalla yalla na yàlla papa ndjay yow rek la lu confirmer sa cofeel ci goor gi ak yene bi nga am may wax ni jini yemul ci ñi ba Abdou jur ñi jige ba Abdou sax am nga ci ñom yene lool rek la bëggon confirmer aladji Mar ba 24 alaaji Taala Diagne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ñing leen di nuyu ci turu seigne Ibrahima di leen ñaanal di leen jaajëfal bu baax di am mbégte lool ci seen délégation bi te njëkkul tey di wax ni yàlla buy wax njaboot néew na mu tudd doom waaye sët lay wax yéen nag bu ngeen dee sëti baay Abdourahim àndandoo nekk benn say nekk benn mbooloo mu ñu nose ngeen bokk ay xalaat bokk jëm-jëm bokk ay yéene te seen jotaay bi njëkkul tey kere ba ni ñaanal ba Abdourahim ba mu kere ñaanal ba Abdourahim ba mu uh, làqoo daanaka dëj bi macha allah lépp yéena ko taxawee lepp lu fay liggey man mi nga xamanteni maron ma don duggo ko genn kuma ci joxañ rek ci sensé da ngay def lama wax lolou noonu lolou la gis muy continuer ba suñ jëmi tay ji dañi sant yalla rek ndax bari na tay ku fi da nga siiw njabot gi nga jural sa bop nek benn waye su fekke yalla defal na la sutura nga joge fi njabot gi nek ben sey seut man ba nek man ba nek euh, xamé def ben mbolo lol ak sante yalla la yalla buy wax am len kilifa yalla buy wax ni de len diglu tay deg li rek motax muy Pam nga wax ci turu setu bay Abdou wax ji ku ko dégg xelam day gën a dal ndax mboolem ndigal loo xamante ni Baye Abdou daane leen daana leen ko digal mboolem conseil yoo xamante ni Baye Abdou daana leen ko conseiller ak joxañ bu mu leen masa a joxañ tey tariwaat nga ko macha allah fàttaliwaat nga ko ñëpp sëñ Ibrahima nag waxi Baye Abdou macha allah mooy waxam ci ay rakkam mais mooy waxam ci yeen ñi nga xamanteni ay jarbaat ngeen di seut ci Baye Abdou kon na ngeen gëna gor gorlu fu ngeen man di nek na ngeen xam kan bu ngeen xamee kan rek fu ngeen man di nek mu nek ak ba ci yeen ndax xalé mom bu dem bu amé lu muy russ rek wala mu am ku mu ragal rek sha allah tëwani saytane kon lolou ngeen bayiko ko xel bu baax gi nak macha allah ngeen di doomi Thiénaba dafa nekk particularité boo xamante ni ku ko tudd tudd Baye Abdou macha allah ndax liggéey bi mu fi def te ñëpp seeda ko macha allah te ñëpp nangul ko ko nag coote gi kon ngeen gën koo bàyyi xel ku ci nekk ci biti boo yàlla dogalee nga ñëw Thiénaba wala nga dëkk Thiénaba gii saa yoo ko ne àjjuma wala bis bu la yàlla man loo moo xam par ñaari semaine la wala par un mois la ku ci nekk ak liggéey ba la tënk nga ñëw fi siyaar si sa maam defal koy ñaan fu ngeen mën di nekk na ngeen gën a góorgóorlu gën a nekk benn xam ni doom ak sët benn lañu wallazina amanu wa tabaatuhum zurriyatum bi imaanin ku ci nekk nag la ngay yëngatu yàlla na ko yàlla barkeel ku ciy jàng te àggalagoo yàlla na yàlla àggale sa àlliwoo te barkeel say diplôme dénk la liggéey boo xamante ni macha allah da nga ci mën a suturlu suturaal ci macha allahu sa njaboot yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala daal njaboot bu nekk fii muy sëti baay abdourahim muy sëti baay sëñ abdourahim dañoo def benn groupe whatsapp dañoo def benn groupe whatsapp def benn daayira lépp loo nga xam ni lépp loo xam ni luy boisson ndox ndox ak xaalis ak xaalis dañ koo dajale dañ ba mu bari ba mu bari ñu indil ma ko

génn nañ àdduna suba jumul le 9 août 2021 tey di 9 août 2021 un an ci suuf ñaan firdaw si di këram barke sidna Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. di gërëm tamit waa Shamsu TV fa tabarakallahu ak seen i taxawaay. waaw macha allah jàngat yi ñu ciy def rek mooy sant yàlla dañuy wax ni ñu boo gis ci benn la commencé waaye première édition bi li ci ëppoon solo def nañu ko parce que nag euh, bisu ñaan la wooteel ñaan sunu waajur Baye Sidi Abdourahim kaamil yi ni fi jàng benn bi rek doyoon na jàng nañ fi ay kaamil ci limu. waaye joxe fi ndog yoo xam ni tamit buñ ci yemoon doy na sëkk euh, mbooloo mi ñëpp mu xaddam mi fu mu xaddam ñëw teew nga waaye fa tabaarakala wuy si Serigne Ibrahima wuy si jaboot Cheikhou Thiénaba waaye bi ci des mooy Serigne Abdou Serigne Assane Seck di xalif général moom it teew na kon yaakaar naa ni jàngat bi ñu jëkk jàngat daal fa tabaarakala mooy euh, ñaan suñu borom su demee nii lii ñu am yàlla nañ am ñettam ci barke naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant rek lañ ciy def ñaan lañ ciy def ñaan ko nangu rek lañ looy tàggoo. waaw tàggoo gi rek mooy tàggoo bu dul tàggoo xam rek di wax ni allah ma profité ci ci seen antenne allah kon xam ñun mission diine ji la ñu yor tudd yàlla tàgg yonent bi suñu borom dogal nag ñu am bés boo xam at mu jot bàyyi Cheikh Tidiane ci digal sargal ma Oumar exclusivité lay def. fii laa jëkk laa ko jëkk annoncé gannaaw bu ma ci amee ndigalu Baye mu renouveler ko ren ren allah sargal maam Oumar Ndak cinquième édition Thiénaba lañ koy defaat fi ko defee le 3 décembre incha allah dinañ ànd ak Thiam's TV ci avant pendant et après di la sant Fat Bintou di sant l'infatigable El Hadj Mar mi nga xam ne mooy suñu caméraman waaye mooy patron Thiam's TV waaye di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp waaye Serigne Abdourahim yàlla na yeewoo àjjana barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi waa kay mbokk yi loolu lañ jëlee leen loolu lañ leen jëlee leen cooti fi nga xamante ne moom moo di dëkku Baye Abdourahim Seck ñu ko doon ñaanal tey nag moo di première édition bi. ñu gis ni Baye Assane Seck xalifa général de ba ñëw na fii def na fi waxtaan bu am rek ba beneen yoon di leen jox dig daje ba beneen yoon foofu la ñuy wàccee suñu kàddu ba beneen yoon di leen jox dig daje ci yeneen i anam incha allah. Samsu TV jant bi leeral àdduna.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 ay waay di ko bëggee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana di ko bëggee waay Shamsul Huda amat yo afa qiyama Shamsul Huda